noo ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax di ñaanal Sëriñ Muntaxa suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ak moo leen njabootu Sëriñ Tuubaa yépp di nuyu kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi di ko tàmbalee ci njabootu maam borom Saam gi nga xam ne ñu ngi ci jataay bi njabootu sëñ baara gi jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sëriñ Fallu moom sëriñ baara mu jàllale na ko sëriñ Cheikh Tade di ko ñaanal yàlla ak yàgg ak wér ak mboolem ñi nu àndal ñëpp di nuyu it ñi bàyyi ko sëriñ Abdul euh, kër sëriñ Abdul Karim sëriñ Abo nekk ca bopp ba di jaarale nuyoo bi sëriñ Cheikh sëriñ bi ñoo ngi lay jottali ay nuyoo ak ziyaara yu jëm ci kilifa bu tedd bu mag boobu di sëriñ Abou Bakrin Touré. ñaan yàlla suñ borom yàggal ko yàggal njaboot gi di nuyu it njabootu Serigne Bakki Fadiama waaye maa ngi wax njabootu Serigne Cheikh Assa Waalo ko ci loxo Serigne Guédé Serigne Mbacke moom Serigne Guédé waaye di nuyu Serigne Cheikh Abdou bi nga xam ne it moo fi teewal Serigne Cheikh di nuyu sous-préfet Mansour Diallo. ñoo ngi koy nuyu di ko jaajëfal bu baax muy nit ku baax di koo xam ne bu ñu ñëwee bureau am daf ñuy recevoir waxtaan ñun ci sëriñ bi waxtaan ak ñun ci réew mi nekk suñu xarit ñoo ngi koy jaajëfal bu baax waaye nag di sant bu baax sëriñ Ibrahima Sall mi ngi xam ne adjoint la te kóllëre gi yàlla dogal mu tàmbalee ci moom waaye lépp rafet kon noo koy sant bu baax di ko gërëm ci seen taxawaay di leen xamal ne lépp lu ñu ñëwoon sàkku si ko ca béréb bon yàlla dogal na ne lépp mat na ndax ñi ñi mu joxoon convocation yépp ci ñu war a ànd ak ñoom matal nañ ko mairie yónnee na fi ci lu jiitu ay oto yónnee fi camion yoo xam ne tonn nañu mbalit yi ñoo ngi leen ci sant bu baax gendarmerie commandant bi ne ginnaaw suba la ñëw na fi xool mbir yi delluwaat tey jii ci suba yi ñëwal na fi boppam ba coordonné lépp ñoo ngi ñuy taxaw ànd ak ñun bi ñoo ngi koy jaajëfal di ko ñaanal yàlla liggéey bi nga xam ne ni na ci loxo mu mu mu eggale ko di gërëm waa santé moom it ñëw nañ fi def consultation gratuite ñoo ngi leen di sant bu baax ci taxawaay bi di leen ci gërëm di sant waa sapeur pompier ñoom it ci taxawaay bi ba xëyee ba léegi te suba dañu fi yabal mbooloo moo xam ne ñoo ñëw ànd ak ñun jotaay bi sant nañ leen gërëm nañ leen boo gisee it ma di ko waxal sama bopp mooy teraanga ñu toll noonu ku la ko defal jaadu na nga yëkkati ay kàddu delloo ko ci ñoom waaye baaxoo wu ñu wax sax def cérémonie nuyoo kilifa yow yëpp it boo gisee ma am ku ma mujjee muy Cheikh Abdoul Bachir moom Serigne Cheikh Thioro dafa am lu di nuyu Serigne Fallou Galas Kaltoon moom Cheikh Mamadou Lamine Bara muy sunu xarit di sunu wëlale di koo xam waxtu wu nekk dafa nuy woo di jël ay teraanga di ko jëme ci moom loolu it noo ngi ko ci sant bu baax. wax ba ci dem woo na ma boo xam ne man moom mi mu woo ak man ak ñi ma bokkal bi ñëpp mujj di jooy ndax dafa wax ba daal yóbbaale ma ku jël téléphone bi mu wax ne lu ëpp su bopp te loolu lépp ñaanal lu rek ko waral Mbàkke sant nga xam ne fu mu teew day soxla ñu ñëw dara waralu ko lu mooy rek wépp sëñ Tuubaa ak bëgg sëñ Tuubaa ak ber sëñ Tuubaa sant yàlla bu baax di ko ci gërëm kilifa yooyu fi teew yépp sëñ Mahamadul Mahfouz moom lay jël nuyoo kër Cheikh Mahamadul Maxtaar moom danaa ci ñëw euh, wax ci ak sëñ jiili mi nga xam ni moom la sëriñ bi teg fii ci dëkk bi yàlla dogal njaboot yi mayam ku ma am sëñ jiili mi moo ñëw tudd ko ndax loolu bàyyam féete la ko kon muy sama xarit nag bu yàgg boo xam ne du léegi sëñ Abdoulaye Ndiaye mii ci sama ginnaaw di sama xarit di sama lépp man naa seere loolu ba ñu àndee nekk ndaw muy sama xarit mu boole ñu ba tey jii ku ma am moo moo ñu koy taxaw di di ko sant bu baax di gërëm it wóllëre yi nga xam ne bàyyi ko nañ ci ay béréb mënuñoo tudd ñëpp waaye mën na ma wax si ab si Abdou Sylla mii ak suñu raat ñu bàyyi ko Louga di ay wóllëre soppe yi ma di leen sant si Mbacke Diop bii moo ko jiite takk laxasaayam gii dama nga jógee Espagne ànd ci taxawaay bi ñu gambi Gambie Ablaye Tall semaine bii yépp radio bo japp bis bi rek lañuy waxtané ci gambi ñew nañ fi ak délégation bo xamné ne go ju nekk def nañ ko ñi bayiko ko Mauritanie yi kasaalika ñoom it ànd ak seigne Assane ak soxna Ndey Fall ñoom ñëpp bàyyi ko Mauritanie ñew and ak ñun te jëmmi sëriñ bi rek ak bis bi tax xajna lima ko kër matul tax na lu ci bari dana am lu ci dess waye lolu it ni sante seigne Isma Kebe daaw mom lañu dara jale nañ ko fi bis bi di ko gërëm bu baax ak sëñ Moussa Diop almashal di sant sama bopp nag maa ngi sant sama bopp sama bopp mi may sant mooy sëñ Moussa Gueye kon man maa ngi gërëm saa bopp di sant saa bopp ndax bés bi bi mu jugsee sëñ Moustapha Guèye dafa ñëw def plateau li gën a yéene bi ma ñëwee dugg ci néegam dafa yëkkati enveloppe jox ma na ma yow lii laa la yeewee yow mi def waxtaan bi joxaat ma enveloppe na bii joxal ma ko waa rajo yëpp télé yi ñëw léegi ñu door a génn waxtaan togg ay reer kon te moom mooy mooy man maay moom moom Serigne Moustapha Guèye kon maa ngi ko ci sant bu baax ak mbooleem njabootu Serigne Amsatou yëpp ndax moom suma xarit la moo tax bi ma waxee ma ne maa ngi sant sama bopp maa ngi gërëm sama bopp loolu it aw melo la woo xam ne doxin woowu la di ko gërëm bu baax sëñ Baara ci délégation bi la bokk waaye plateau bi mu def këram def na ci lu mat juróom-benn fukki junni moom sëñ Cheikh mii daal na nit njaral na ma ko loolu it maa ngi ko ciy gërëm bu baax di sant ñi ma yàlla booleel te ñu bokk nekk ci kër gi maa ngi leen di gërëm bu baax di leen jaajëfal man na maa jël nuyoo yépp teg ko soxna maam jaara ginnaaw bi ma jiitalee soxna Ndeye mi nga xam ne moo moo jiitu ci kër gi maa ngi koy jaarale ci moom ndax moo war ndax moo fi jiitu soxna maam jaara ab sëriñ la fi soxna la waaye ab sëriñ la fi maa koy sant ndax moom it ñoom ñii kenn ku ci nekk say bokk ñëw nañu ànd ak man bis bi ñëw indi sa teraanga jox ma ànd bi ñoom ñii dañuy sant sant Mbàkke dañuy futtee ku nekk ca waañ wa ànd ak man liggéey bi loola it loolu it bu leen neexoon diñ ko def waroon nañoo bu leen neexoon toog ma jël at yi di leen jox soxna Astou mooy ne ca wa jiite ko mel ni ku santul Mbàkke bii ba léegi delluwut sanguwut te bu leen neexoon nag gànna suñu taalibe bàyyee waaye defuñu loolu kon maa ngi leen di sant ci loolu ñu def ak soxna maam Issa Ahlu Café moom it teewaay bi mat na te lépp rafet di sant sama bokk yi ñi ma bokkal kër nay ak ñi bokkal kër baay yi ndax samay bokk yàlla dafa dogal ñoom ñu bëggal ma seen bopp am na ci ñoo xam ne mënuñoo jàkkaarloo man wax ndax bëgguñu di jël seen alal di ñu jox ku ñu ci yónni nga fax kon noo noo noo ngi leen di gërëm lii lii nga xam ne nii jàpp nañ ne lu sëñ Tuubaa def na ci noonu loo xam ne sëñ Tuubaa ngeen ko ci yàlla nañu ko bokk ëllëg ca kanam sëñ Tuubaa ah, bi ma ne loolu sëñ bi sedd rek bu ñu ko lëtt bokk ak ñoom yàlla bu ñu ko am ndax mbokk yi gore la am yu baax kenn xàmmeewu leen ci wu ni ay banc xëccoowu ni place ay bàyyi fayal lañu ci noonu bu ñu ñuy nuyu dañuy tuur seen i rongoñ di wax ne yow mii lañu sëñ Tuubaa féete leen kon sant naa leen ci bu baax gërëm naa leen ñoom ñëpp sama wële yi bàyyi ko fu nekk ñëw teew sëñ waay yi gërëm nañu leen ñi may mujj rek sëriñ Bachirou moom sëriñ Cheikh Thioro sëriñ Bachirou day sama sëriñ di sama xarit muy nit ku baax koo xam ne sëñ Tuubaa rek la ñu woon moom lañ ànde it mu tane ñu ci xam-xamam tane ñu ci alalam tane ñu ci daraja dinu ci gunge waxtu nekk noo ngi koy sant noo ngi koy gërëm bu baax liñ moom it loolu rek ko dana faral di wax ne gàr na sequ ñu dara du sama xarit du sama nangam du sama nangam man mii jëppewu ma ko ab xarit jëppewu ko alal ndax xam naa ñu ko pël fop bis bi am nañu fi andi lol mënuñu ma gis liñ ma jox man naam kenn jox ma leen toll te ñom mënuñoo aksi ci man tekki kon ñoñu bu doon daraje man naam ma leen koppale kon andiwul wul am am daf ma won señtu tubaab ju leer ñaan am na señ yi xam na ma ndax ganna maxtar lañ may wax jébbuluwuma kon waye as gor ko tané boko ca dimbalee mu la lolo nu bon ko am fulla la ci loolu dégg naa mu naan gànna du sama xarit sequnu tus du sama xarit waaye sëñ Tuubaa laa gis ci ma may waaye bu bu doon alal laay wut danaa ko teg ndax xam naa ñu kopp te nag bu ma nekkee ci biir bàmmeel yaakaar naa fa maxtaar de kon nag li ma àndeek moom xam naa lu mu lu mu doon daf maa yëg rek nag jàpp ma xam ne nit laa ndax man ab ceddo laa maa nga dëkk Mbacko maam ju ma jun ma sax moom aw ñi daan yan ma suuf di di ko bawal sama mama ko dakal bam mu fekk ci pinci mu tëdd mu ne ko lo fi def mu ne ko buru ba fa ma yabal ngir ñu fay fetalam dur ko mu daan kon man bañ ak lolu muy sama mbir ak ciadola ken duma ciof ken duma nap ken duma xixal andi wuma kenn la wutul ma passeport diplomate musuma ko wax ben serigne may ma ma tabax keur musuma ko wax ken kon ku ma topp sa ginnaaw di la simmili daal di la daw jikkoy Sëñ Tuubaa nekk ci yow looloo ma boole ak sëñ Bass tey moo jot ma war ko wax rek pour jum am ba jàpp ne du ma taalibe du ma du ma xaritam du ma dara looloo ne waaye lii moo nu boole mosuma ko wax bindal ma benn recommandation mosuma ko wax benn arrangement mosuma ko wax dimbali ma ci dara ngir damaa jaaxle ca loola waaye sëñ bas mii damaa ëpp damaa ëpp ci yëpp damaa ëpp moom Serigne Bassirou damaa ëpp wàcce dara jaam ganar sax bu dé sama kër sëñ bas ñëw nu ñi def kon buma goré xana bu bu way way niw doole niw doole du tee xeex tolu tolluwu ma ak mom mais lima man dama ko def sama bop la am lool rek ma bolé mom ku bax la ku ma gunge ku ma wittili ko xamné lu doon laaj bakkan mo ci jitu ta du sama moroom dal motax ma ngi séré aduna li la am ak Serigne bassir moo tax ma jëlal sama bopp kàddu yi ngir wax ku baax ku gore ku bëgg Serigne Touba daf may wax ne ma gànn lu ma am ci Cheikh Mouhamadou Lamine dañ ca am bis bii day ñëw ma lu manqué loo bëgg lu mu doon waxal démb moo fi jiitu barki démb waxtu wu nekk mi ngi teew sëñ Basiiru jëf nii nga nu jàppe te sëñ Touba rek tax ndox nun bu dee teeli bi am nga ñun wëpp bu dee bokk am nga ñun wëpp doonu yónni doonu liggéeyloo bëgg noo dimbale naka tax nga japp jàpp nu jëf yalla na la yalla fay di sant ci Abdou Samad mom Serigne Chouaib koku dafa ma jëm ci paddu ndax moma yobbu ci ca Rasulullah si Abdou yag ma bëgg yag ma japp yag ma bayyi xel daana yone auto mu jël ci ma fi yobuma ngir ma tok kërëm di waxtaan sama gaal gii bu ma ko ubbee xaw ma ñaata mbubbi sëñ Abdou Samata ci nekk mu yóbbu ma makk taraanga ju ne mu di ma ko defal kon maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm démb nag yi mu yeew fii fii la ko tàmbalee ba fenn yemu ci boole ko taal oto mu ñëwaat fi la jullee timis ba gee fekk ko fi mu door a dem man nag du ma ne ci liggéeyu sëñ Tuubaa bii moo xam ku la mën a jur ak foo mbakkee foo buusoo foo faale boo yëgut ne liggéey bi maa ngi ci la yëg ndax man liggéey bi ma ci boole man sëñ Tuubaa du sa maam seexulut sa maam nee moo ma may lii ku ma ko bëgg a xeexe ba génn ci yow ndax enracé woo lii ma ci boole koo mën a doon nag ndax boo dee boddi koo ko génnee ko xuppe damay xam ne doo sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa bu doon def noonu kenn du jot ci moom te kenn du sëñ Tuubaa gis nga fi ne sëñ Fallu sëñ Modou Moustapha ëpp lu mu jëf sëñ Fallu sëñ Fallu ëpp lu mu jëf sëñ Blaat sëñ Blaat ëpp lu mu jëf sëñ Saliou ëpp lu mu si lu ko waral bismil ilahi yan muuluhaa yi bila manaahi wala tee gis nga sëñ Muntaxa daa dajee ki milliard sëñ Modou Moustapha dajee ko nu carrière ku mujj ñëw yaa ëppale du kenn sëñ bee maanaam du wërsëg wu rëy du daraja maqaamam sëñ bi egg foofu daraja sëñ bi egg foofu du njàmbaaru kenn ndax koo ne jàmbaar la lu mu def bu dee gasub raay nu na ñoo koy gas bu dee addi yi taalibe yi ngeen naan joxe leen di ko laaj kon lu fi waay am taalibe sëñ Tuubaa yi tax kenn deful sëñ Tuubaa dara sëñ Tuubaa defal ñëpp kon nag ku ku ca boole yor loola di nu seexloo di nu bordikoo di nu tëju ñu génn ci yow xam ne enragé woon jàpp ñuy wàcc seen i dara ji dimbale nu ndax ñoo nu enragé ndax yow ni nga def bu nu sëñ Tuubaa defoon doo doo mel ni nga mel wala doo ko doon moo tax ku nu jàpp ñu jàpp la moo tax Cheikh Abdou Samad nee naa ko yow Cheikh lu wóonu da wóonu ñu bari ay dëmm lañ jàppe taalibe duñ bokk ak ñoom lekk buñ leen seen i bu ñuy naan làqu ko te bu la joxee addiya nga jël loo soxlaa dara ma jël loolu mooy la lu mu la jox nga jël ba noppi di ko Cheikh moo tax ñoo ngi sant Cheikh Abdou Samad ci nii mënu jàpp di sant Cheikh Mouhamadul Mamoun moom Cheikh Abdoulaye moo tax boo ñëwee ci këram aw turam a nga fa Cheikh Abdou Samad sëñ Mouhamadul Mamoun maa ngi koy sant nag wi ma yónnee démb xaw ma nu mu toll ba xëyaat ñëw fi tey ci maa ngi koy gërëm turandoo yi ma ko tuddee ngi fii sama kër muy ku baax di ko woyef di ko bëgg sëñ bi moom it nii la ñu jàpp mooy sëñ Tuubaa rek la ñu jàpp ci lépp moom sax am sama maa ngi koy maa maa ngi koy gërëm bu baax ndax bu la defee loolu mënu sëñ sëñ ah, maamu da nga koy sant teraanga ju nekk indi nañ ko fi maa ngi leen di gërëm sëñ jiili ñan kennal sëriñ Tuubaa démb aw nag la fendi na ma joxuma la ko addiyee sëñ afiye joxuma la ko addiyee kenn addiyee sëñ Tuubaa laa la ko jox ngeen koy kennal ngi ko ciy gërëm maa ngi koy sant euh, Mouhamadou Gueye sant naa ko bu baax sëñ bi man sama xol sedd na Aliou Thioune gërëm naa ko li tax ma tudde ko doom bu doon deret du ma ko def ndox man géer la kon du ko ko tudde Aliou Thioune da ubi radio gan na man na am lam xam sax wut mu jël ko ci am te la ko diplôme nako lola neex defal radio bangok na seigne bambay jigen rek ba tay neena neena ko legui jigen nak budé sey bu njëlam doyé ku ne man na la yakal waye jigen lim lim geneen goor borom keur waye ku sa ñël doy nga sax nga moo waral gànna ne fu ne ndax mën na maa yàkkale ndax sama njël doy na benn yoon lañ lañ may moom Aliou Thioune maa ngi koy sant si Ibrahima gërëm naa ko ku baax la sama xarit la ku gore la ku mën a nëbbutu la wane wut àdduna looloo nu boole waxtu lu ma yëngal lu mu néew néew mu bàyyi lu mu jàpp ñëw ñëw fekke si sëñ Ibrahima mii moom dafa amaat li ñuy wax relation personnel dañ koo siqaat maa ngi koy gërëm ak sama nijaay sëñ Fallou Gala Sylla ku ñàkk ki ñaan ku baax koo xam ne defe nañ ne lu jóg war naa taxawu jàpp ma ca wala mu jàppale ma ca di ma gunge di ma wéttali bu ma naree jaar fu ma wërta jaar mu ne ma du noonu awal nii bu a naree wax lu dul noonu mu ne ma bul wax loolu waxal nii te man mësumaa xam moom yitte ju ma wax ngir man ma defal ko man kon maa ngi koy gërëm bu baax sëñ Fallou Gallas Ibrahima Fall Lamp moom noo bokkoon dem Makka sama grand la dama koy wax sama grand nit ku bax la borom xol bu sen la may jeexale lépp nag mooy jataay bii li tax ma di ko tudde mag ni moy ñom ñoo ni ci dekk ndax señ tuba dalee na gën gis nga dund du référence ndax njum te du wess beut bu set nga naw nit diko kaw kaw ba yag nga deg ñu arrêté ko audio bo xamne dang koy wet kon kuy dund te dego mom bu too référence même pour tout qui mato goko parce que erreur du wess ñi fi dund ba jàll sëñ Tuubaa gërëm leen nag lañ am wér man ñooñu lay wër man ku ma tane lay wër man gànna ku ma tane lay wër ku ma woon yàlla ju wóor man maa dimbale lay wër bu dee business dàquñu ma ko sëriñ bi business rek ak a dóor arrangé wu ma man ku may woon yàlla lay wër sant sama bàyyi Cheikh Mahmoudul Makhtar sëñ Modou kañ lañ doon yokk jumaay Daaru Muxti bu ñu bàyyi Cheikh Khady toggee 2004 2004 sëñ Mour daf maa woo téléphone fekk maa ngi sama kër baay ji téléphone bi ma doon wuyu ab Philips la bu giri fi ma sama loxo ay baraag la maa ngi jàkkaarloog mbaar ya wate yi jëm Touba Fall ak Sam ci biir kër gi la ñuy jaar ñu ñu jëmbat fa ba bi di jeex mu woo ma ne ma gànn maxtaar ma ko alhamdullilah gina wax ngok ko mu ne nañ la koy wax ndax lu jant bi tim, soo tour dana fa yegg nañ lay wax gànn maxtaar señ Mourou bu dul doon gi sama serigne batin baatin yep way nawlo gi nak ki jël domam jox la kay nawlo na la lolu lolu lolu moy señ bi lu ma ma sa waxi gis na dane ma dama lay jox sama dom samp la sëñ Tuubaa wax nak li tax sëñ Abdou sama doy lii sëñ Mara Seck laa àndaloon sëñ Mor Gueye jàngat anam fekke na ko ma ñëw nuyu sëñ Abdou Samad ci këram gi ci takkusaan mu di ma xool di ma xool ba yàgg mu ne ma yaa a toog fii de waaye gànna deret sëñ bi daw sa yaram fu mu ne Cheikh Abdou Samad dama deret sëñ bi daw sa yaram fu mu ne ma ne ko xaw ma ko de mu ne ma da am soxla sant Mbàkke ma ne ko yóbbu ma ko de jataay booba dañ fa déparé taal suñu oto man ak Mara ak Mor Gueye fekk sëñ Modou ci kër gi mu ferantulaay ma nuyu ko mu ne may naa la maam jaara biig kon man bu ma demee ba jataay bii ñu woote ko li tax ma jëlal sama bopp kaddu sëñ Tuubaa mi may sant billahi wallahi wa taala xam na ne maa ngi koy sant parce que Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Tuubaa xam na ne xam na ne maa maa ngi koy sant te man mii yëg naa ne sëñ bi xam na ne maa ngi koy sant parce que Cheikh Ahmadou sëñ Tuubaa yëg na ne maa ngi koy sant waaye man xam naa man nii gànn maa ngi sant sëñ Tuubaa sëñ yëg yëg naa yëg na nangol na ma li maa ngi koy sant xam naa ko man man maa ngi koy sant waaye xam na moom xam na ne sant naa ko ndax lu bari dajale ci lu bari dajale ci sama allima gàtt na aw ma solo sëñ Lamine Diop wax na ko léegi amul luñ ma sa xëccool sëñ Tuubaa ma dem te jotugu ci amut am ba ma doonee gànn ba léegi luñ ma sax xëccoon sëñ Tuubaa rek bu ma demee jot naa ci wa wa wa waajewu ma ko ay pexe waajewu ma ko ay xalaat bàyyi soo bopp sëñ bi rek ci sama bopp laa gëmee ni sëñ ay sëñ Tuubaa ku ku dul moom man def nii ci suufee baax na baax na baax na baax na wax ji doy na dégg nañu ñu war a dégg jooyee ci des dafa jooy ñëpp ko baax na jërëjëf jërëjëf sëñ Darou boo na baax